jërë ngeen jëf mbokk yi nga xam ne yéen ñuy bàyyi xel fii ci Africa Press 24 eh, nee naa leen saa su ne dañuy am mbégte ak kontaan di jàkkaarloog ñoom ñi nga xam ne suñu borom dink na leen xam-xam rawatina kii nga xam ni moom lañ jàkkaarlool kenn dootu ko présenté ñu gën koo xam ci cheikh bi ñu fas yéene séq ak moom waxtaan ci jotaay réew mi. Mm-hmm. waaye wala boobu dañ koy bàyyi mu nuyoo képp koo xam ne yaa ngi koy bàyyi xel fii ci Africa Press 24 cheikh bi ñu ngi lay siyaar. sallallahu ala muhammad jërëjëf sëñ Mountakha Mbacké Bassirou bu baax. Mm-hmm. yéen waa Africa Press 24 maa ngi leen dalal ak jàmm naa leen tafatal maa ngi leen mhm. delloo ziar waaleykum salaam wa rahmatulah jërëjëf cheikh bi ci dalal bi waaye cheikh bi fi may tàmbalee ci waxtaan bi mooy tolluwaay réew mi ku ne tolluwaay réew mi xam ne ñu ngi jub ay élection muy législatif ci wàllum député yow mi nga xam ne suñu borom may na la nga am gis-gis baatin ci élection yi génn muy législatif local du moins ci wàllu maire yi nga faloon fi ay mair élection législative ci wàllum député yi loo ci gis. waaw li ma ci gis day neex ñi du neex ñi. Mhm. tey li ma ci gis du neex parti au pouvoir. lu waral lool dinañ leen dóor door door door door a dóor a dóor ba yàlla fóot seen i saga. parti au pouvoir. à parti au pouvoir mooy parti président Macky Sall. Mhm, mooy APR. APR Benno Bokk Yaakaar. moom kay nan leen parti au pouvoir na nga xool euh, résultat yi buy génn. Mhm. dinay sonn loolu. li ko def mooy seen njiit baax na hmm. ndax ku nekk xam nga ni président Macky Sall président la bu juddu après l'indépendance su noonu hmm. président Adama Barrow hmm. président la bu juddu après indépendance ñooñu li nga xam ni Senghor bëggoon na ko président Léopold Sédar Senghor daf ko bëggoon ak président Daouda Kayawa Diawara dañ ko bëggoon amuñu ko mooy décentraliser Casamance amuñu ko réussiruñu ko mhm. bi Abdoulaye di ñëwee fekkante na ak président bu naan Yaya Jammeh mhm. Abdoulaye di jëm na ko ba sonn moo président Yaya Jammeh réussiruñ ko pour décentraliser Casamance mhm. avant Abdoulaye Wade Abdou Diouf nekkoon na fi mujj na sa muy xeex Abdou Diouf xeex na ba attaque bi sax benn bis bi Bissau mais lépp taxu ñu réussir seen objectif kon tey bu ñu demee ba président Macky Sall ak président Adama Barrow réussir loolu président Macky Sall marqué na empreinte am ci cour des grands tey bu ñu demee ba autorail bii nga xam mooy TGV tey Otra bi nga xam mooy TGV tey mu am fi mooy Otra bi jóge Dakar jëm jëm ñaajo. Mhm. c'est vrai que kii bi gàtt na circuit bi gàtt na. mais baax na avancement la. kon def na xam nga man damay bëgg nit bu defee. loo bañ bañ lëkk nangul ko guddi noppam. nangul ko gàtt geenam mhm. mais président Macky Sall ñi nekk ci ginnaawam. Mhm. ñi ci ëpp de waxuma ñëpp mais ñi ci ëpp xam nga majorité nag bu bonee mhm. yow la ngay dese day day waa jour boo xam équipe boo xam ni majorité jour yi mooy nga dem diggante sept jours ba huit jours ñu bon mhm. du ñu gis ci match mais duma leen day yomb mais ak réalisation yi nga wax yëpp euh, def na ko pourquoi pas mënta gagné jaar ci loolu gagné réalisation gagné wu fi président Abdoulaye Wade tollu woon na fi jamono boo xam ni mhm. dama ne bu doon dafa tabaxal ku nekk kër séréwul day daanu fàttalikul ba Abdou Diouf bi nga xamee ni dafa doo war a daanu mhm. nit ñoo ko tuddee woon monsieur forage jabar ji mooy matam Moulin mhm. dama lay fàttali doom lu yàgg mhm. ay réalisation la woon dafa duggoon ci millier rural bi di leen defal ay forage jabar ji di dem ci milieu rural bi di may ay moulin ci moulin yi jigéen ñi ko soxla parce que dañu naan sox ak kii seen loxo. Mhm. di bojj ak loxo. ñun doomu kaw kaw yi xam ne luy loolu. Mhm. kon bu ñu amee machine boo xam ni mën nañu di bojjal dugub ji. Mhm. ba pare soqal ñu ko wolal ñu ko kooku développement la ci réew mais teelul dafa daanu. xam nga Sénégal la moo ko yore. nga am staff bu sérieux yow seetal tey ministre yi sama portable ak nii. ministre boo mën a woo wala député wala maire mu wuyu la. ma jox la un million tey léegi léegi. kenn du jël téléphone te ñoom ñoo daan waal ci mbedd yi di porte à porte mm-hmm. ñoo daan dem ay Malika mm-hmm. di dem ay Kër Massar mm-hmm. de anañu léegi seen portable silencieux lañ ko def dëpp ko ñooñu koy nax ñaar yoon tey liggéey est liggéey bee bari seen kaw mais ñu xam ni ñoom ñoom ñoom dañoo irresponsable nañ fi jógee Europe leen ëpp liggéey fuuf te dañuy dox ci développement ñun ci Europe lañuy ñuy bi Amérique leen ëpp liggéey foofu mais dañ naan time is money nga xam ñoom seen jamono yëpp seen waxtu yëpp dañ koy dox ci xaalis. seen chiffre d'affaires bi nekk dañ koy contrôler équivalence fu mu toll dollar bi dafa yéeg wala dafa wàcc walla nàngam. mais fii looy dégg ay kilifa yu nekk ci pale bi di saagaantey ndey mosoo koo dégg. loolu doy na waar. ñoon ci dañ fi gañewaat. Hmm. <laughs> président Macky xam bëggee gañe nu muy def. te woy Ousmane Sonko wo bay Batlimi Dias wo Khalifa Sall wo ñi nga xam ñoo ngi naan jox le ma réew mu liggéey jox le ma réew mu ni kay li ñu liggéey mais cheikh bi lool nga bo président Macky Sall wo Sonko Batlimi Dias Khalifa Sall est-ce que loolu xel ak bu gangé dani est-ce que loolu xel mën nako tak ne ñu bokk taaw taaw ku bëgg sa intérêt personnel nga bañ loolu ku bëgg intérêt Sénégal nga nangu ko maman maman lamb jaangi ni yow nag bu dee yow sa parti APR moo la ñor. Mhm. <laughs> Sénégal am borom ngi nga sama classe gi politique kenn fayuma par weer. Mhm. boo dégloo suma yenn image yi danga naa man est-ce que man duma apériste mhm. man yàlla moo may fay. fo loolu foofu sax laa bëggoon ñëw ndax des fois damay dégg ci sa kàddu nga tudd ko ba wax kóllëre bi ngeen séq bi seen i bàyyi séqoon ak kóllëre bi ngeen séq kon boo waxaatee loolu euh, kon ça se voit que ni dëgg am na fu mu nekk. <laughs> dafa am loo xam ni dama cee eggagul la ma egg ci. Hmm. xam nga Bamba Fall meer miit na bu baax sama rakk la ci man la topp. Bamba Fall meer xam loolu gën a dee lépp. boobu la moom euh, révélation bu bees na. <laughs> ay gi. waaw mu ngoog di ñëw na de. <laughs> mais Cheikh ba tey euh, ci biir parti bu benn Bokk Yaakaar. ap muy APR parce que ben bokk yar monul coiffé ñum ñep lan moy jafé jafé bi. booy day lu askan wi ay lay kessé yu musul am dara. hmm tay président Macky Sall tax ñu fuy di jënd ay kër di takki hmm di dof ci kaw nit ñi di jey jey hmm ko ci rom nga amé escorte bu baax bo musul am hmm ko la ci wo nga jël sa portable depp ko amo ci mom soxla. Mm-hmm. lolay jafé jafé bi. askan ñoom moom seen carte nit ñi léegi dañu am fulla de bu yàgg biir Senghor jeeg biir Lamine mm-hmm. dañoo xawoon a rey dañoo yeewu ca maam yi mm-hmm. xam nga kañ lañ yeewu mm-hmm. bis fi nga xamee ni dañoo bëggoon mettre en mal les musulmans ak les chrétiens ñu doxee ci ñu ni dialogue islamo-chrétien xam nga lu ko indi lu ko indi diggante Lamine Gueye ak Senghor xam nga li tax Lamine Gueye moo ne ko entraîneur Senghor moo ko formé Senghor moo yenu Lamine Gueye ba biir bu weex dóor ko ci suuf parce que xamul nu mu ko defee te yaram élection Lamine Gueye nekk président assemblée nationale Senghor bëgg réew mi. Mhm. posé candidature am xam nga na fi mu yooyu ñu daan wax. Mhm. Lamine Gueye doo moroomu Senghor dinañ ko wutal way boo xam ne kenn du ko wooteel. Mhm. naan ko la naan ko ñun du ñu wooteel catholique suñu tour di dem Popenguine ñuy dee di lakk xool nu mu jubee du ñu wooteel catholique. Mm-hmm. suñu tour di dem Popenguine ñuy dee lakk. Mm-hmm. xam nga man lan moo ma neex ci sama jamono. Mm-hmm. mooy génération bi yàlla dafa ma cee boole. xam nga quelqu'un qui n'a jamais fait les bancs. nekk comme un historien. nekk un cheikh man du ma marabu de ku musul jàng alxuraan kii sama soxna la. sama mag bu góor barki dem lañ mujj a toog ci salon man ko man musuma jàng alxuraan musuma jàng école. waaye loolu warul jaaxal kenn ndax sëñ Tuubaa fooy teg fi yàlla waxee fa alin maa yooyu am déet mhm. kon yàlla day jël lu ko neex def ko ci jëmm ju ko soob maa ngi nii mhm. suñ ci duggee ma dem ci ba sori nga dem ci tubaab ma dem ci ba sori mhm. ndax yàlla day maye léegi nag man nu ma yàlla maye may ragal doomu aadama réew mi nañ ko defaraat. Mm-hmm. président Macky Sall. Mm-hmm. na fexe woo frère am yii. maa man maa man ji dafa booj sama nopp yi. Mm-hmm. ñi man làmb jaa ngi nii Sénégal lañ bëgg lu ko defal ñun bëgguñu politicien bokkul ma politicien. technocrate lañ bëgg.